képp koo xamante ni bii yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la am naa essence am naa oto te mën naa ba mën naa ñaan gratuite nag laa koy defee. moitié prix. moitié prix. te am na ñetteel nag. da koy takk même ñetteel li tàmbalee deuxième daal laay ñaari ma aaw daal laa dul takk. deuxième quatrième si ah, waaw quatrième ba. ay mama sas Modou Fall li sa jàmm la. kër gu yéen rek bu nga leen eh, jàkka ja ci im na ñaareel im na ñaareel koo xam ne yow teg ko ah sas Modou Fall sa jàmm du xulleeku ku bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ne yow aawa nga xam nga noonu daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail day naan ay sedd da ngay jàpp jus bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toggee ca télé ba war a jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel saf moo ñaar da a war a doon ay kënsër mais tàppen ngeen jàpp jéeg yi takk naan ayu sedd da ngay jàpp ji bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toogee ca tele ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta guerre sax mondial da ngeen a war a doon ay kënsër mais tàppen ngeen euh, képp koo xamante ni bii yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la am naa essence am naa oto te mën naa xutba mën naa ñaan gratuite nag laa koy defee moitié prix moitié prix ñetteel nag. da nga koy takk même ñetteel li tàmbalee deuxième daal laay ñaani ma aaw sas moo du faat li sa jàmm la kër go yéen rek bu nga leen eh, jàkk ja ci im na ñaareel im na ñaareel koo xam ne yow teg ko aaw sas moo du faat li jàmm la. jéggi takkal ñaareel ñi rek jéggi du xulleeku ku ci am ful oustaz Modou Fall bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ni yow aawa nga xam nga noonu daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail day naan ay yu sedd da ngay jàpp jus bi def ci yoo xam ne bu demee mbir bay daw bu toggee ca télé ba wala jàkkaarloo pam seen daanu mbir bi mel ni Jakarta gerte saf moo ñaar da ngeen a war a doon ay kën sa mais tàppen ngeen jàpp jéggi takkal naan ay yu sedd da ngay jàpp jus bi def ci yoo xam ne bu demee mbir bay daw bu toggee ca télé ba war a jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo mbir bi mel ni Jakarta guerre saf moom a war a doon ak kënsër mais tàppen ngeen. képp koo xamante ni bii yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la am naa essence am naa oto te mën naa xutba mën naa ñaan gratuite nag laa koy defee. moitié prix. moitié prix. te xam nga nu muy demee ma joxeel la premier cadeau bi. ñetteel nag. da koy takk même ñetteel li tàmbalee deuxième daal ma aaw daal laa dul takk. deuxième sas ah, Modou Fall li ba sa rek bu eh, na ñaareel im ko aaw ah, sas Modou Fall li ba sa jàmm la. jàpp jéggi di takkal ñaareel ñi rek jéggi du xulleeku ku ci am fulu sas Modou Fall bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ni yow aawa xam nga moom daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail naan ay yu sedd da ngay jàpp ji bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toogee ca tele ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta a war a doon ay kënsër mais tàppet ngeen jàpp jéeg di takk naan sedd ngay jàpp ji bi xam ne bu demee biir bay daw bu toogee ca télé ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta guerre saf mondial da ngeen a war a doon ay kënsër mais tàppet ngeen euh, képp koo xamante ni bi yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la am naa essence am na oto te mën naa xutba mën naa ñaan gratuite nag laa na nu muy demee ma joxeel la premier ñetteel nag. da koy takk même ñetteel li tàmbalee deuxième daal laay ñaani ma aaw daal laa dul takk. deuxième ah, ay mama sas moo du Fall li ba sa jàmm la kër go yéen rek bu nga leen eh, jàkka ja ci im na ñaareel im na ñaareel koo xam ne yow teg ko. sas moom dafa libaasa jàmm la jàpp jéggi takkal ñaareel ñi rek jéggi du xulleeku ku ci am fulu sas Modou Fall bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ni yow aawa xam nga noonu daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail sedd da ngay jàpp jus bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toggee ca télé ba war a jàkkaarloo parce que daanu biir bi mel ni a a doon ay kënsër mais ngeen jàpp jéggi takkal naan ay yu sedd da ngay jàpp jus ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toggee ca télé ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta guerre day saf mondial da a war a doon ay kënsër mais tàppet ngeen. Euh, képp koo xamante ni bii yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la am naa essence am naa oto te mën naa xutba mën naa ñaan gratuite nag laa koy defee. moitié prix. moitié prix. te xam ñetteel nag. da koy takk même ñetteel li tàmbalee deuxième daal laay ñaari ma aaw daal laa du ah, ay manu sas sa jàmm la kër go yéen rek bu nga leen eh, jàkk ja ko aaw sas moo du faat li ba sa jàmm la jàpp jéeg di takkal ñaareel ñi rek jéeg di xulleeku ku ci am fulu sas moo du faat bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ni yow aawa nga xam nga noonu daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail naan ay yu sedd da ngay jàpp si bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toogee ca tele ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta a war a doon ay kënsër mais tàppen ngeen. jàpp njëg yi yu sedd da ngay jàpp si bi def xam ne bu demee biir bay daw bu toogee ca télé ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta gerte saf moom da ngeen war a doon ay kënsër mais tàppen ngeen. képp koo xamante ni bii yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la. am naa essence am na oto te mën naa xutba mën naa ñaan gratuite nag laa koy defee. moitié prix. moitié na nu muy demee ma joxeel ñetteel nag. da koy takk même ñetteel li tàmbalee deuxième daal laay ñaani ma aaw daal laa dul takk. deuxième ah, ay manu sas Modou Fall li ba sa jàmm la kër ko yéen rek bu nga leen eh, jàkka ja ci yem na ñaareel. dem na ñaareel koo xam ne yow teg ko aw sas moom dafa li baasa jàpp jéggi takkal ñaareel ñi rek jéggi du xulleeku ku ci am fulu sas Modou Fall bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ni yow xam nga noonu daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail naan ay sedd da ngay jàpp jus bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toggee ca télé ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni war a doon ay kën sa mais tàppet jàpp jéeg di takk naan ayu sedd da ngay jàpp si bi def ci yoo xam ne bu demee mbir bay daw bu toggee ca télé ba war a jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo mbir bi mel ni Jakarta gerte saf moo ñaar da ngeen a war a doon ay kënsër mais tàppen ngeen. Euh, képp koo xamante ni bii yor nga benn soxna bëgg a takk deuxième femme mën nga maa woo ma demal la am naa essence am naa oto te mën naa xutba mën naa ñaan gratuite nag laa koy defee. moitié prix. moitié prix. te ñetteel nag. da koy takk même ñetteel li tàmbalee sas Modou Fall li ba jàmm la kër go yéen rek bu nga leen eh, jàkka ja ci yem na ñaareel im na ñaareel koo xam ne yow teg ko aaw sas Modou Fall li ba jàmm la jàpp jéggi takkal ñaareel ñi rek jéggi du xulleeku oustaz Modou Fall bu ñëwee di seet sa jëkkër mu leer na ni yow aawa xam nga noonu daa bëgg jus day naan jus day naan ay cocktail sedd da ngay jàpp jus bi def ci yoo xam ne bu demee biir bay daw bu toggee ca télé ba wala jàkkaarloo Pape da ngeen a war a doon kën sa mais tàppeen ngeen jàpp jéeg di yu sedd da ngay jàpp jus bi def xam ne bu demee biir bay daw bu toggee ca télé ba wala jàkkaarloo Pape Cheikh Diallo biir bi mel ni Jakarta gerte saf moo ñaar da a war a doon ay kën sa mais tàppeen ngeen